asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 13 septembre 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag jàppal sunu làmbal tey ak journal bi nga xam ne moo di record bu fekkente ne nag yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb la day tey dafa xëy ñëw ci ay combat yoo xam ne ni jàpp na ne day mu ci taabalu benn promoteur boo xam ne day bëgg na combat yooyu yëglikaay bi nag nee na combat yi nii la diggante Modou Lo Boy Niang Tapha Tine Balla Gaye Gris Bordeaux Lac de mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day ay démarches am na ci bu dee ci côté Tapha ak Balla la moom Tapha Tine bi nee na côté moom ah maanaam nangu nañu Balla tamit daa mel ni ñoom it nangu nañu ci seen côté bu dee waa Fass la seen diggante ak Lac itam yëglikaay bi di sunu laam nee na ñoom itam day joxe nañu bi nga xam ne promoteur bëgg na ñu daje ko ak de bu dee ci côté Modou Lo tamit ak Boy Niang mu mel ni nag yëglikaay ba tamit fàttali nañu la nga xam ne moom la fi birim ñu waxoon ci diggante Balla Gaye ak Ama Baldé yoo xam ne jàpp nañ ne war nañu daje ak Modou Lô mu mel ni tamit bañoon na loolu moo tax nag mu mel ni ki fi mu nekk nii day wala ci semaine yi ñu jëm des na wax ci diggante Modou ak Boy Niang ak combat yi ñu fi wax yépp wala boog Modou ak ki mu war a dajeel moo xam Ama la wala Boy Niang mel ni ki fi mu nekk nii daal gars yi ñu ngi gëstu di dox ay combat yëglikaay bi nu sunu làmb xëy tey ñëw duñu ko wax leneen loo xam ne nii moom wala keneen koo xam ne moom ab combat taxaw na wala seen combat taxaw na muy diggante bàyyi ma njoon bu caaroy gëm sa bopp ak xoyantaan ca Gàmbi suñu làmb ñu ne li leer ba leer day le 3 novembre nag la ñu war a daje bëre fa nga xam ne moo di ca Gambia mel ni ki nag balaa ñoo bëre sax daa mel ni dimanche jii day yëglikaay bi ne na war nañu amub fa nga xam ne mooy ca Gàmbi muy seenu jàkkaarloo lamb ja nag ka ko tëgg moo di jamayken boroom jom production suñu làmb xëy tey wax ñu ko mel ni ki nag jamayken itam fi salawaat na beneen combat dox ci diggante building la ñu wax ak Balla ñami naa mu mel ni ki tamit loola jamaykee fisala na ko yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw diñu ko wax leneen loo xam ne fisala nañu ko jàppal ñu fekk ko ca Leewtoo point net moo di diggante Serigne Ndiaye numéro de ak Libidor bu Grand Yoff te léegi nag mu ñibbi fa nga xam ne nii moo di ca Kayaar Kayaar mel ni ki nag foofa jéy seen moo fa jaar tëgg boobu combat waaye leneen loo xam tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi di suñu làmb ñu ne ñu taxawal nañ ko muy ba tey ay combat xale muy diggante ki nga xam ne nii moo di réparé di rakki marle ak yankaaw bi nga xam ne nii moo nekk ca Duudu Bakasaar mel ni ki nag petit production moom moo jaar foofa taxawal li nga xam ne moo di boobu combat waaye leneen loo xam ne tamit dañu cay dem mooy jàppal ñi nga xam ne nii day ñoo di waa jëf soog a nekk mel ni ki nag sunu lam ñoo ni ci seenu saison quatorze combat la ñu am am ca huit victoire ak juróom-benn défaite yëglikaay biri sunu làmb xëy tey ñëw dina wax loolu ci gëstu boo xam ne def nañ ko fi nga xam ne mooy sa écrit booba yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki daal kon jëf soog a nekk day ah daa mel ni li leer ba leer daal dox ga moom nekk gu dox goo xam ne ni gu baax la xoo xam ne ni daal mën nañ jàpp ne dox ga yegg na fi nga xam ne ni war na faa yegg loo ci mën a dégg daal kon ñoom ñu ngay jéem yëglikaay bi xëy tey ñëw di ñu ko wax mbaytin moom daa mel ni ba nekk ci école de fa Fadam de ab saison boo bëggee dég dég daal dox gi mu war a dox doxu ko wala moom mbaytin ci boppam mel ni ki daal ci diggante ak lëndëm ak ci lay dox fi mu nekk nii moom mbaytin moo xam ca defet yi nga xam ne mu ngi koy am wala ndam la nga xam ne mboog am na ko te tëjee ko ab saison yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw dina ko wax waaye dañuy dem fi nga xam ne moo di record record nag moom ka fa xëy nekk. muy sos moom la Abdou Ndour séqal waxtaan wu yaatoo yaatu sos nag ñëw na ci carrière am mu ko commencé ba fi mu ko jeexale waaye la ko ci gën a marqué wax na ko ne na premier ba nga xam ne ni day moom la waroon a bëri guddi googa nga xam ne bu bët seetee la war a bëri ci guddi googa mënu ko na nelaw wala sax mu xëy mën a xool jant bi la ko ko yóbbu woon nag maanaam moo doon bët boo xam ne da doon metti ba sonal ko lool premier combat booba nag mel ni diggante meeg Pape Sène la ko séqaloon zos nag ñëw na ci lu yaatoo yaatu ci waxtaan woo xam ne day xëy seq na ko ki nga xam ne moo di abu nduur ba ci TNT bi nga xam ne parce que ci la mujj bëre sos na TNT ba day la ko ca jaaxal mooy daal neuf millions daal la fay benn maarab bu ci ñetti combat chaque komba mu jox ko 3 millions waaye noonu lañ ko toppee itam ñetti millions chaque combat combat bu nekk itam akub defet tam ba muy ñetti defet mu jox maaraabu ba 9 millions sos tamit ñëw na ci loolu waaye am na leneen loo xam ne tamit daal wax na ca mu yaatoo moo xam tur wi ñu koy wooye ci lamb wi nga xam ne nii moom moo di sos waaye tamit leneen loo xam ne wax na ko fi nga xam ne nii jot na faa jaar ak lamb xëy na moom nu mu ko jàppe woon ba tax taxu kon koo jox fulla xëy na bu ci amee difficulté loolu moo ko ko yóbbee daal ci côté musique beeg ni ci gaa yi daan sonne mel ni ki daal sos tey desalul dara wax na lu yaatoo yaatu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record digganteem ak kii nga xam ne moom moo di abu nduur waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay ñëw mooy Siteu mi nga xam ne day mu ngay waajal MMA ba mel ni ki nag yëglikaay bi xëy na tey wannu ki nga xam ne nii mooy yi legacy yi nag mooy manageru Siteu bi nga xam ne nii moo ko engagé ci mbirum maa bi ñu gis ko fa nga xam ne nii day mooy ci yëglikaay bi ñu fa doon ñu ko wan ñu ko waaye yëglikaay bi tamit ñëw na wan ki nga xam ne moo di Max Mbargane mi nga xam ne mooy man a sëru si te ci wàllum lamb ji nga xam ne nii day mooy lamb réew mi di Sénégal waaye nag yëglikaay bi na li leer daal mooy kera jàppal open ba nga xam ne moom la Siteu organisé woon day kii nga xam ne nii day moom moo di Max Mbargane teewu sa woon keneen koo xam ne nii moom mu ngi nii di ab manager waaye nekkoon ancien mbër mel ni ki nag dafa xaw a tawat ba mu dalal ko fa nga xam ne moo ci hôpitalu Thiaroye muy kii nga xam ne mooy manageru Lac de Guiers numéro deux di Mohamed Ali kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla wéral ay cëram yëkkatiwaat ko ba delloo ko ci njabootam moo bépp doomu aadama bu di yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñu wax nu ko waaye yemu ca de xëy na fësal ñu ay xale yoo xam ne ni day sunu làmb nu leen wan gaynde daaru Pape Socé ak far bu jar ak kii nga xam ne ni day moo di naaru gétuo yëglikaay boo xëy tey ñëw wan ñu yooñu waaye li leer ba leer daal yàgg tey la ajjuma yàgg ñu ngi balu ñëpp ak yàgg di baal ñëpp ak yàgg tey ñaan yàlla adduna bi yàlla na fi yàlla def jàmm rawatina réew mi nga xam ne moom la ne werante yu bëri na jàppal bàyyi ji bëri na waaye na ñu xam ne dañoo bokk loon mënta xaajoo te mooy Sénégal kon nag ku yebu jiima la joow joow bu baax réew mi avancé jëm kanam jàmm ja ko laloon mag ñi defoon ko fi ñu jiim koo bàyyi noonu te sàmm ko moo gën yàgg ndox mu fekkewul ba muy taa boo amem xel boo ñëwee bu ci dugal sab tànk Sénégal gii nii lañ ko fet nañ fi rafetal dund gi yàggul kat. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm sant Babacar ngeen àndaloon si revue de bi nu àndal te yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si àjjuma ji. maa ngi lay fay ndey Comba di la ziar di la ko delloo di la nuyu di nuyu internet yëpp ah. di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom mais nag tey nuyu bi dama koy ubbee tey damay am na ko xam ne foo ma ubbee ko nuyoo bi muy mère Sow sa yaay. parce que xam nga kere yàlla dafa doon ma am benn kii bu ndaw rek benn gaañu gaañu bu xaw a ah mais ama ci kilifa boo xam mat na la yaay bu la wooyee téléphone di la laaj ni nga def kon defe naa loolu tamit c'est normal tey ma wax comme pour ñëpp dégg kon daal mère Sow mention spéciale quoi lay ñaanal yàlla guddal fan yi wéral cër yi te barkeel njaboot gi barkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit ndey kumba euh, <laughs> mais loolu dinañ ci wax mais xam naa après lay doon waaw Babacar euh, comme ni ñu wax rek Babacar ñëwati na rek Babacar ak ay façon Babacar nu commencé ak euh, sunu lamb sunu lamb nag tey dafa ubbee ak ñetti choc nañu am na promoteur bu bees bi waaj ñëw si lamb ji moom nag si choc yooyu si la nekk muy diggante Modou Lo Boy Niang Tapha Tine Balla Gaye ak Lac de nee nañu nag Modou Lo ak euh, Boy Niang waxtaan bi waxtaan bi door na. waaw kooku de dañ ko naan mu dal ak jàmm rek comme ku bees la ah, di ko wax tamit su ñëwee yàlla yàlla def li muy ut mu fekke ko fi ta li maanaam ci li mu ñëw muy làmb parce que tamit combat yu ku ko wax wax ay millions yu baree baree baree bari ñetti combat yooyu lak booy non booy ñan gi ëmës Modou Lo giri lak ak tafaatin Balla Gaye defe naa loolu moom ku ko bëgg a tëgg di nga génne xaas bu bare baree bari kon yàlla na ñëw ak jàmm mais na gis la mu fiy xaar loolu tamit lu lu ay combat yu normal la parce tey defe naa ne Modou Lo c'est le roi des arènes comme li mu waxoon rek moom mooy nekk yaakaar naa ba tey moom mooy choisir ki muy bëreel actuellement te réewul nag nit ñi am nañ droit ne Modou ak diw lañ bëgg wala Modou ak diw mais nag moom mooy cëggal guyam ndax yàgg laay bëreel wala Ndeye Koumba Fall <laughs> am na droit tey moo bu ñu gisee ne bëre ak Boy Niang taawal ko moom moo gën si ñoom am nañ bi te Boy Niang tamit yaakaar naa ku bëre ak Lac de Guiers numéro 2 comme ab bëri coow torop ah bu neexee Modou mu ne am kaay ma may la sens te réewul nag nit ñi tamit ci benn côté di nga dégg ñi ëpp naan digganteem ak Ama digganteem ak Ama mais comme li ma wax rek moom mooy choisir Boy Niang tamit nekk na xale boo xam ne nii actuellement am na lu muy wane si làmba bu dee le cas de la ak ki nga xam ne nii moo di Tapha Tine loolu moom lu normal la normal 100 pour cent parce que lu tax mooy dañu bëri woon yaa ngi dégg Tapha la am ci kawam ndam. làmb yu bëri woon coow bëri jabaay waaw ba tey ji ba bu yàggul rek gis jéegaa nañ ci Tapha sax a ngi ciy wax. yaa ngi dégg tafaas diigaan nañ ko mu di ci wax ci na mu waxee noo xam ne nii waaw xam nga mooy loolu euh, mbirum gàllaaj dafa mel ni xaw na ko caa tudd yu demee ni ki noonu Balla nag dafa dàq lool moom dafa jàpp ne moo ko man yaa ngi dégg non Balla sax la ñu laaj mu wax ne tafaas sax waxul mbirum gàllaaj mais Balla Gaye moom la ki ko doon laaj waa sunu làmb la muy démbale ndax mbir ma amul gàllaaj yooyu Balla ne noonu loolu amu ci bu ca amee parce que li ca am mooy dama ko mënoon daan ko kon defe naa bu ñu avancé sénégalais ñu ngi koy xaar giréeg lagit dañu jàpp ne ñooy ñaari mbir yi ñu jàpp ne ñu bokk nañ ci ñu dàq xeex ci làmba ay xeexkat lañu seen combat yaa na koo bëgg a dëgg tëgg su ma maay yàgg na ko bëgg parce que lak mas na fee sol ab tiset ñëw Demba Diop ne ko giri looy xaar tiset laa la wax kon lak bëgg na ñamante ak giri donte nag comme ni mu a wax si li ñu mujj a ci communication plan BM la ko def maanaam mooy su mënta am Modou Lo mu jël giri yaa ngi dégg kon moom tamit defe naa loolu ci liñ gis mooy Fass it daa mel ni ci liñ jàngat validé nañu loolu tamit lu war am la parce que combat jànq la boobu te bu keroogee ñoom ñaar dinañ ciy découvrir kan moo dàq xeex diggante Gris ak Lac loolu rek doy na ci combat boobu. waaw Babacar dama ñëwaat si combat Modou Lo ak Boy Niang est-ce que loolu du am ñu mere tuuti Modou Lo parce que tey soo gisee Boy Niang si défaite la jóge te am na ay combat yoo xam ne combat yi gën a. bokk si sama xalaat bu gàtt combat choc maanaam ay ñoom Ama ñoom Tapha lu tax tey jii mu dem si Boy Niang est-ce que yaakaaroo tamit xëy na yëpp dafa yaakaar foofu gën a nooy si moom. non Modou Lo moom est-ce que dina jàpp toogati ci làmb di xalaat naan fii nooy na <laughs> a buy jël Boy Niang da koy jël ci contexte yaa dégg xale la am na lu mu def am na adversaire boo xam ne bëri na ñaari yoon bëri na ak moom yaa ngi dégg te itam nekkoon na ci lancé bu baax donte combat mag Lac de Guiers la mu doon xaar moom booy Niang ci satisfaction amu ko ca cent pour cent parce que defet sax la ci mujj jële avec benn recours bu waa wàllu dugaloon yaa ngi dégg Modou nag tey bu taxawee ne da koy tàllal loxo ci li ñu gis parce que du lu ñu mën confirmer gu lu ñu gis la bind ko ci ab gëstu boo xam ne suñuy confrère a ko def muy waa suñu làmb yaa ngi dégg ñàkkul xëy na am na ku ko bëgg loolu fii lii wax ji fi muy leeree bés bu staff Modou Lo ne joxe nañ sunu kàddu pour bari ak Boy Niang su keroogee des na ci war a gën a mën a xuus mais nag terewul ñu ne Modou Lo parce que ñooñu muy Boy Niang moomu di Ama Balde yaa ngi dégg ay ñoom guy gi ah ñoom Modou Anta ay Yékini Senior rëg-rëg mbër yooyu ay ñoom Forza gars yi ñuy tuddee VIP dañ leen war a may loxo ñu génn bëri ak ñoom yaa ngi dégg tey Modou Lo bu ko neex am na droit jël Boy Niang su keroogee itam na keneen jaare fee jël Ama Baldé moo xam Bombardier la moo xam Gris Bordeaux la yaa ngi dégg ñu su ko defee ñu ñu isee lan rëg-rëg mi am na ku ko war a mën a jël ci ñoom pourquoi pas mais loo ci mën a dégg rek lépp làmb la mais nag amateur yi man ak ñuy suivre chaque jour dama naan ñoom ñoo ñu gën a xam lu raisonnable waaw promoteur bi nag am na droit ñëw def soo am ne nangam ak nangam mais nag li ñuy wax rek yóbbu su yónni sama waaji rek yàgg maar bu demee ba ñëw xëy waaw. Babacar nag ñu dem si euh, Gambie ndax foofu Jamaïcain moom nu ngi fay ubbi saison am Gambie lay ubbi saison am le 3 novembre diggante ma Maniam ak Xoyantaan mooy roi des arènes Gambie donc foofu lay defee fa lay ubbee saison am daal euh, suñu promoteur bi nga xam ne moom mooy Jamaïcain. Jamaïcain <laughs> sama sama rakk la waaye ku luq njuur la nag kooku kenn du moom jamay jamaïcain waa xam xam nga luq njuur luq njuur buñ la ko waxee rek mooy ku doy waar nga lu ne di nga ci dugg lu ne di nga ko noo non yàgg luq njuurul. yàgg daa kii quoi dafa xaw a euh, metti tuuti mais ki kii loxo jurul mais jàmm encore une fois ñu koy nuyu di ko encourage parce que xale la le fait que am courage yu ñëw si làmb rek loolu courage la kon ñu ku ne xam na ko si làmbu Sénégal li mu fi wone defe naa addina bi xam nañ tey kan mooy Baye Mandione ci làmbu Sénégal buñ ko jëlee boole ko xoyantaan bi nga xam ne mooy roi des arènes roi des arènes Gambie loolu tamit defe naa ne luy promouvoir làmb la rek génne ko ci république bi yóbbu ko ci république bi te Gambie ak Sénégal sax dama naan benn république la rek pour man sama doon jamaïcain daal vraiment loolu mu def loo am am solo la le 3 novembre nag lañ jàpp datu combat bi loolu moom si kàttanu yàlla dañuy ñaan yàlla fekkee ko tal ko ñaanal jamaïcain tamit mu réussir ko parce que xale la te mu ngi jéem te olof ne na ku yokkul yaa wàññi te mbir mu ne boo ñëwee fekk ca ay nit def ca dara am na loo ca yokk kon loolu mu yaakaar itam pour bëgg ko yokk si lam yàlla na ko yàlla dimbali mu réussir ko amin Babacar ñu dem nag si bilan yi tey nag ñu ngi si écurie jëf soog a nekk nee ñu mu ngi si 8 euh, victoire ak 6 défaites nee nañu daal. ñu ngi si si ay si ay jafe-jafe daal pour ñoom daal bilan bi baaxul te président bi tamit loolu la wax ne ne bilan bi moom baaxul. waaw waaw loolu moom du bilan bu positif waaye nag euh, ci benn côté mën nañ ko mën nañ leen a encouragé que lu tax ñu leen di encouragé wala ñu félicité parce que écrit yooyu yëpp yàgguñu ay jëf soog a nekk ak yeneen écrit yu mel ni ki ñoom yàgguñu su ñëwee léegi bay am bilan boo xam ne sax di ëppalee di gën le des fois écrit yu mag yi nga xam ne fi lañ leen fekk ak yeneen école jëkk ubbi lu yàgg kon am nañ mérite loolu dèjà mérite la kon tamit du tere dañ leen di ñu gën a liggéeyaat rek gën a parce que 14 combats lañ def 8 victoire ak 6 défaites am na ñu ñu tane yaa ngi dégg bëri na ñu ñu tane te écrit bu ndaw la kon defe naa jëf soog a nekk ah ñu continuer jëf rek. waaw ma ko yàgg di wax dina baax. waaw dina baax boo continuer di jëf te fexe li ngay jëf nga di ko teg ci yoon nag ndax jëf ju mu mën a doon moom ju baax jag ji tege ci aw yoon da cay ëpp njariñ waaye yeneen jëf joo jëf jurut jooju moom ah. man man nga ci am léegi dara de waaye mën naa am mën nga cee am garaam bu boo sol wala jasneer bu waaye dégg di nga xëy benn suur dey kaala gi nga xam ne 1000 francs lay jar di la ci të waaw loolu lu des nag ak Maysa Ndiaye Maysa Ndiaye su ñu ko déggee mooy président CRG wu Thiès moom nag mi ngi mi ngi métti du li nga xam ne stage bi nga xam ni ñoom noo ko organisé woon pour entraîneurs yi ak ak ak ak arbitre yi. Euh, ñoom moom daa am na lu ko métti parce que nee na euh, problème de moyen moo tax ba affaire bi euh, ba stage bi amatul loolu nag mu koy métti lu parce que entraîneur bi formateur yi ñu ñëwoon ñu waroon ñëw pour organiser stage bi ñoom noo laaj xaalis bu cher te nee na loolu am budget boobu. amu ko te euh, xaalis boobu noonu ñoom euh, commission arbitrale bi nga xam ni Sitor moo koy diriger moom moo ko moom moo waroon euh, diriger stage ba finalement amul Babacar muy muy mbir boo xam ne bu doy waar la. waaw région de Thiès ak lu mënti xew li ñu def ci làmb di ko fa organiser ci li affaire champion Sénégal teg si boole ci dara résultat ñu jël ko tey maanaam ñoom ñooy champion du Sénégal actuellement fii ñuy waxee defe naa am na yoo xam ne suñ ko jubatee war koo def muy ay euh, nuñ ko ay ay stage waras na leen mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk loolu ba ñu mën a def loolu parce que tamit am na lu nga xam ne ni ñu ngi koy yokk ci sport Sénégal moo xam làmb ji la moo xam football bi la volley boo dem rek région de Thiès dañ fay présent kon yaakaar naa loolu tamit war nañu ne gën a dimbali pour que stage yooyu bu ñu ko fa nga xam ne ñoom ñoo ngànk li war a tax staff bi stage bi réussir ñooñu jàppale leen pour loolu mën a am kon Maysa Ndiaye vraiment moom tamit ñu koy nuyu di ko siyaar di nuyu waa région de Thiès yëpp ñi fay yëngutu ci làmb rawatina suñu soppe ya fa nekk ku mel ni Baye Sow

bi nga xam ni fa la Aboundour nekk te ne dafa sekk ak waxtaan bu yaatu ku ñuy wax xam nga kuy soo soosaat dóor dóoraa capp cappaat <laughs> borom capp cappaat ñeex ñeexaat soos soosaat koo koy sos mu ne guy gi damay yéeg ci guy gi capp cappaat <laughs> njambaat kooku nag moom la Abou Ndour tey dalal fii nga xam ni mooy journal record wax na nag si carrière am mais nag Babacar li ma gën a yéem nag si interview bi nee na tournoi TNT bi nga xam ne si la bokkoon joxoon na 9 millions benn benn benn sëriñ pour mu ñaanal ko si ñetti combat yi maanaam combat bu nekk 3 millions mais daal au finish à l'arrivée ñetti combat ñetti defee te jox na sëriñ boobu 9 millions. waaw loolu day xam nga mu ñaanal la nga wax xam nga kii ñaan moom la muy ñaan ki ñuy ñaan kenn kii la mooy azawajal la. sunu borom tabaraka wa taala sëriñ ba itam dafa amoon yàqin ci ne bu ñaanee yàlla yàlla nangul ko rek ñàkkul daan na ñaan muy nangu mais xëy na boobu ñetti combat yu ci TNT bi ñaan na yàlla gàntu comme nag moomu li ngay ñaan dangay ngay demander audience ci nit ki ñaan ko ne ko nangam laa bëgg ah xëy na bu ko deful daa gën waaye 3 millions chaque combat 3 millions ah te mu nekk ñetti defet muy 9 millions waaw mu ngi noonu daal waaye nag loo ci mën a dégg daal mooy que ni lépp lu waaye di tamit ak ku mënoon rek suñu borom bi la koy wute ji ndax yàlla moo yor lépp ku mucc tamit yaakaar naa ne moo la muccal waaye terewul nag dajal bi mu ñu dajale si àddina dañuy jariñante maanaam yaakaar naa ndey Kumba Faal ñëw ci moom dégg koy loxo na ko ñaanal ma mu ñaanal la xam nga ñaan mën ngaa ñëw tey ne ndey Kumba Faal ñaanal ma sama combat bi ma mag yàgg ma daan mu ñaanal la yaa ngi dégg nga daanu mais xëy na daanu ba moo gënoon ci yow te xëy na doo ko xam yow nag da ngay jàpp ne li nga doon wuti pour yow da ko war a am rek soo ko amulee rek pour yow loolu gënul mais yaakaar naa bëri na moom sos ba bàyyi làmb tey parce que yaakaar naa bàyyi na làmb te gisuñu foo xam ne jàpp nañ ne sos mi làggadi na wala am na loo xam ne ni yàq na kii yam wala nangam na loolu gisuñu ko gis nañ sos boo xam ne daal bëri na bàyyi làmbam ci seen sam di dund ni mu bëgg a dund te loolu rek defe naa ak cant la loolu ñaan gu nangu la waaw Babacar si kàddu yoon leen di tàggoo euh, moom mi nga xam ne moom mooy DG Leewtoo. Leewtoo noo Thiès day ñàkk ko may dédicace wóorul ndax olof dañ ne ku tax ngay tax boo taxul ne ko yaa tax may boo tax boo goree ne ko yaa tax may tax te ñun nag Thiès a tax ñuy tax kon Thiès <laughs> séeri ki may bañ a tudd maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu soxna si waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom tamit. ñu ngi koy bégee bu baax a baax soxna Thialis parce que bu baax a baax la di nuyu Ami waaw Amina ñu ngi lay bégee bu baax a baax a baax borom atelier ba nu mu tuddati sax. Zahra Couture Zahra Couture ñu ngi lay nuyu. di nuyu ko fàtte de. <laughs> waaw non waruma koo ñaw bi na ñëw. Thialis waxal ak Amina mu solal ma àjjuma bii di ñëw. loolu ñëpp tamit mu solal ñu. ñetti yére nga koy def Amina yàgg maar ci caméra bi ndey kumba si dur gauche bi Babacar si droite bi tonton Diaw moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu madamam tontoo jaw borom Aden borom asalem borom Fass Gueule Tapée Colobane ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm parce ñoom ay borom baax lañ. xam kilifa mën naa doon kilifa ba pare naqari deret wax xàtt loolu di doxee pouvoir am mais ñoom yàlla defal jagleelu leen loolu. yaa ngi dégg du ñu sax bàyyi xel ci li ñuy def des fois boo xoolee kon yàlla na leen yàlla jàmmal guddal seen far wéral seen ay cër mais defal ko bépp doomu aadama yaa ngi dégg di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii tamit dañuy suivre Ndeye Coumba Fall parce di kaas ubbeeku ah di faw ma ubbi ko parce que <laughs> yàgg maar du mën a ñàkk dompat ci sot la bokk yàgg xam nga tuuti yaay Sarr mi wax naan la ko léegi séeréer Assane Sarr la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax si dina rusé séeréem Assane Sarr ca Ngaparou Balla ba Balla Gaye bi mu nga Italie soppe Balla gay dële di taalibi suñ baaba tey mbër waaw fi daal moom Balla noonu la tudd de Salif Balde ñoom ñii ñëpp xam nga Alioune Sarr Serigne amaar Boy Mbaw Samad Diaw xam nga ab Ndour gaa yëpp. Boubacar Seck. loo bokk guy gi. guy gi bu Mor Fadam. xam naa bu ñu ñibbi mën nañoo bokk oto bu ñuy war ndax cene ba lay wàcc ma continuer wàcc aldu ndàngam bi dem ak yaay moom wàcc biir cene ba cene ba Seck dugg këram oto moom mën nañ koo bokk Mamadou Kaolack Diallo mii tamit duñ ko fàtte mu nga Lisbonne ak sekk ndaanaan kenn du yow gars yi. Ibra Sarr moom tamit ñu ngi koy nuyu baax a baax mbokku biram la dëkk Ngunjaan Kempes doomu ndoy yàgg marsiri amisi la maa ngi koy nuyu ca Paris la France mm. waaye Baye Sall Dieng sama mbokkal bu nga Paris di nuyu fan si club Babacar bi du ma leen sama doom baay doo ko kenn du Fall Fall kenn day moom Fall borom Yoof ak Wokaam kenn day Fall maa ngi lay bëgg bu baax di ay sa Faye mais Thiat Thiat maa ngi lay nuy bu baax a baax di nuyu mère Sougou kenn du meer sugu yaag caat la famille fay boobu mention spéciale maa ngi leen bu baax a baax a baax a baax Aïssa Faye nuyu naa la bu baax a baax yaag say mbokk mais Aïda du ma ko fàtte nuyu naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm tey laa aj juma di Sophie Dior kenn day moom yaay fàll la. jox dig daje leen di incha allah. <laughs>